lañ ciy àndal. dal leen ak jàmm Sénégal nekk ci guddi ju bët setagul waaw lan moo tax sama naataango bii di journal enquête wax loolu mu ne waa ah, xanaa yow gisoo tension politique yi nekk Sénégal montée des daanaka danger yi mi ngi fi ku nekk gis na Sénégal mu toll ni présidentiel ñëwagul daanaka un an la moo des waaye ku nekk xiiro nga yow Macky Sall Ousmane Sonko Ousmane Sonko Macky fu ñu jëm ak lii sama naataango ne ah man de bu fekkee nii ragalu leen man ragal na sama naataango bi di journal l'observateur ne est-ce que loolu war na leen tiital war na leen jaaxal lool laa laajte ñu ne ko waa ah, lu tax moom moo mën a wax loolu mu ne waa yow gisoo lu xew ci espace public bi gàtt sa gàtt génération gàtt sa gàtt yow sa xiir yeneen yu nu mel waaw yooyu la ñuy wax ku dee sa yaay juraat waaw bu fekkee ni nekk nga ci réew bu mel noonu waaw loolu war na la jaax war na la jaax koo xamante ni am na xam-xam ci wàllu woowule ne waa finalité du discours politique daanaka fekkee ni yow booy wax doo wax nii rek da ngay wax ngir def effet ci ni lay déglu daanaka boo waxee daanaka wax bi day def bon wax jëf en même temps pendant temps ne loolu mooy danger waaye nag waaye yow askan wi ne boo xoolee bu baax lu ku indi tension yëpp du kenn ku dul makki sax waaw sama naataango bi di journal Vox Populi jox parole waa yeewi askan wi defoon démb daanaka conférence de presse ñu ne waa lu ñu def Ousmane Sonko ndax nangu moo tax ñoom nee nañ léegi bu kii di Ousmane Sonko di dem fële ci tribunal di wuy si ci procès moom ñoom ñoo koy yóbbu ñoom ñoo koy yóbbu yor seen écharpe député yóbbu ko waa fu mu yem neex daanaka pare nañ ngir xeex ak nguur Macky Sall ko kii di Khalifa Sall moom itam d'accordul ak lu ñu def ki di Ousmane Sonko nee na moom loolu c'est inacceptable c'est inadmissible c'est inélégant mën a tax bi di l'observateur ne loolu am na waaye état Sénégal reculé wul benn yoon ndaxte ku nekk gis na ci jeudi bi ñu génn nii ci tension troubli trop de troubli yi ñu jàpp yëpp daanaka def nañ ne retour de parquet yóbbu nañ leen procureur procureur delloo leen yi commissariat kon ñu ngi ba léegi nii ci commissariat de Dakar mën a tàngoo ne ah ils l'objet d'un retour de parquet gardé ci commissariat central bu Dakar waaye nag kii di Azoura Fall nekk maam Pastef mi moom nag yóbbu nañ ko Ndungu Sine sous mandat de dépôt offense au chef de l'État outrage à un corps constitué daanaka diffusion de fausses nouvelles sama naataango bi di libération ne waaw waxal rek te yi liste militant Pastef yi dem ci prison bëri na ëpp na téeméer nag bu CNRA te gënalu ne amul luñ ko yëkkul démb ci Walfadjri sama naataango ne ah Walfadjri da doon def sitting ngir ne ñoom dàqoon nu ak CNRA doxale ak ñoom sama naataango bi di Walfadjri yi jox parole njiit groupe bi kii di Cheikh Niass ne Walfadjri contre le pouvoir nekkul ak opposition mu ne waaw ñun ak peuple bi lañ àndal ay nag libération ne wàllu woowulee ah de mobiliser nañ waaye nag tey ak suba manifestation yi ñu sumoon bëgg ko def ci CNRA ak place de du am am ndaxte préfet de Dakar aaye na ko ñoom itam nee nañ banañ la ba léegi nii sama naataango bi ne xaaf mu toll nii CNRA du Walfadjri kese la am am na problème am na problème ak itam ak waa des médias mu toll nii nag seen contentieux boobu dañ koy vider fële ci Cour suprême jeudi bii di ñëw incha allah dañuy dem foofu lay ndaxte ku nekk xam na des médias dañ ko coupé woon am problème ci wàlluwule Khalifa Sall woo na socialiste yëpp ak képp koo xamante ni mun naka jàppale ngir ñu dem ci présidentielle 2024 yi booba ñu gañe ko ñu jële fi Macky Sall sama naataango bi di journal po Populi mi waxtaan ak Khalifa Sall jox ko parole moom nag mu ne ah ma ancien camarade yëpp maa leen di xool maa ngi leen di xool ci gët nee leen ñëw leen waaw parti socialiste ñoo ko bokk ñëw leen ñëw leen ñun ñëpp ay waa gauche la su ko defee ñu mën a kon gagné présidentielle 2024 sama naataango ne ah Khalifa sal mi ngi woo parti socialiste mi ngi woo itam gauche bi yëpp su ko defee mu mën a mu mën a nekk seen candidat ndaxte ñoom ñëpp ba léegi nii mënuñu déterminer amaguñu candidat waaw question bi mooy ndax nag loolu dina antu waaw kii di Aminata Mbengue Ndiaye njiitu parti socialiste wax na nee na fu mu toll ni ñun benn bokk yaakaar lañu wax te jàpp naa ni bilan Macky Sall ñun itam am nañ si wàll waaw ñu ngi koy assumer waaw ah, amul benn problème amuñ ci benn problème fu ñu nekk nii ci ligne boobu lañ nekk ñu wax ci leneen a conseil supérieur de la magistrature dina am incha allah ci fan yu ñu jëm journal Le Quotidien ne ah dina am mouvement dina am mouvement ndaxte cour d'appel yi dinañ am ay nit yu bees tribunaux de grande instance yi daanaka itam dina am renouvellement parquet généraux yi naka noonu ki nara remplacer Cheikh Tidiane Koulibaly premier président de la cour suprême kooku tamit dinañ ko xam ci bés boobu leen sama naataango ne ah chamboulement dina am kon ci magistrature ñu wax nag ci dossier boo xamante ni l'observateur wax na ko la fuite des cerveaux am na ay médecins yu bëri yoo xamante ni dañuy abandonné fii jóge fii dem ci France ngir yokk seen payoor yokk seen niveau de vie sama naataango bi l'observateur ne ah baax na de jox na parole ñi fa ne na nag baax na de ñëw leen waaye nag def leen attention ndaxte France na nga pare parce que France du Eldorado moom daanaka mun nañ la jeter par la porte à tout moment mun nañ la ne ah léegi bàyyi bàyyi mun nañ jékki-jékki ne la ah sama waay man maa la jëloon léegi moom nañ ñaan la boobaa ngeen soraale balaa ngeen di ñëw ndax ci sport kan U20 yi dina tàmbali Sénégal Nigéria dinañ jouer ci dimanche bi banatango bi di stade quotidien ne ah s'imposer d'entrée waañ commencé rek loolu am na solo de ndaxte ku nekk xam na les choses sérieuses commencent pour le Sénégal dina kon jouer contre Nigéria boobaa bu gagner ah dina baax banatango del si itam ci week-end de Bamba Dieng Iliman bu Boulaye Dia Famara Diédhiou ñu ngi leen di xaarandi Bamba Dieng championnat France ndax dina wone boppam ci Lorient Sadio Mané nag mi ngi ci Allemagne ci Bayern de Munich mu toll nii mi ngi continuer entraînement yi ci Italie ñuy xaarandi itam Kalidou Koulibaly dina jouer contre Southampton xam ngeen nag Kalidou Koulibaly temps yépp doxuloon trop waaye nag ci Ligue des champions alarba bi ñu génn jot na kon wone boppam contre Dortmund sama naataango bi journal dat quotidien ne ah ndax défenseur central sénégalais bu Chelsea bi Kalidou Koulibaly ndax dina enchaîner wanati boppam a ñu koy xaarandi bu baax a baax ci match boobule jër ngeen jëf jërëjëf